asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñoo ngi nuyu mbooleem mbokk yi teew ci jataay bi dina déglu ak mboolem ñu nuy seetaan ci biir réew mi ak bitim réew di wax ci kàddu sëriñ ahmadul badawi yi moom seex muhammadinil fadil xëy na mënuma ko waaye danaa ko jiim ngir sàkku gum ko sàkku ci man ndax ay kàddoom moo gënoon a yell moo gënoon a jekk moo gën a rafet ci barab bii ma koy waxe ngir fa tabaarakallaahu ñoo yem ci cër bi waaye xam-xamam bu rafet ak ab yaram ak fonk gim fonk doomu aadama ak pas-pasub taalibeem tax na ñëpp bëggoon a dégg kàddoom waaye nag yoon wi mooy doxe noonu ndegam sàkku na ko ci man man ma toogoon di ko déglu moo ma gënal ñu toog di ma déglu kon nag kàddu yi sëriñ Ahmadu moom gannaaw bi mu dalalee bokk yi bokk yi fi jógee sëriñ Hamza monsieur Abdul Ahad sëriñ Saalix mu sëñ Murtada ak si Mouhamadul Bachir mi si léegi ak sëriñ Abibu ak ñi mu àndal ak mboolem mbokk yi fi teew yëpp sëriñ Seex mu sëñ Muntaqa ak délégation bi mu àndal dafa wax ne ak mboolem ñi teew ci jataay bi ci boroomi xam-xam. ñi yori école di jàngale ñi yori daara di jàngale ñi yëngu ci xam-xam ñépp ku ci ne bàyyi nga la nga ne woon ngir fekke jataay bii ngir itte jule jataay bi itteel ak wuy ab wooteem jataay bi nag li ko waral moo di ittewoo guñ ittewoo mbirum sëriñ bi di ko liggéeyal ci xam-xam ci ndigalul ki ko fi nekkaloon di seex saalex wutal leen aw tur waaye gannaaw bi it muy dox ba seex Muhammadul Muntaxa mi mu gën koo jëmmal gën koo suuxat gën koo dëgëral waaye sëñ Ahmad Badawiyu dafa mënta fay sëñ Muntaxa ndax daf ko doyloo ci boppam doyloo ko ci li ko gën a ñor muy daara ji ak xam-xam bi ndax ku ne dafa am loolu sëriñ Tuubaa liggéeyloo ku ne da ngaa amub cër ci sëriñ Tuubaa waaye moom sëriñ Muntaxa dafa jàpp ne liggéeyam aw sémbam yu gën a rëy nga xam ne buñ doon dañ koy misaal ci ab tool dañ naan ku ne dañ laa dooñ ne la lii mooy saw doñ nga fas yéene bay ko walla saw sas moom jàpp na ne sasam bi gën a rëy mooy li fi sëñ Tuubaa bàyyi woon te ay baayam ak i magam di ko doxal ba mu egsi ci moom mel na dañ ko ko yéene woon bàyyil ko fi mu war koo mottali muy daara sëñ Tuubaa ji loolu nag la ko ca gën a ñor nga xam ne bokkut ak murid yi joxe seen alal te ñëpp mënuñu ko nag muy nañ koy nose ba bu ëllëgee ñu mën koo jàng ñu mën caa jàng nañ bëgg a jànge ak doxiin wa ak la ca war lépp daf ko dénkoon sëñ Ahmadou mii ak ñim àndal ci liggéey bi danaa ñëw ci wax ak sama bokki murid yi soññi leen ci liggéey bi waaye fi may njëkk waxe mooy ci wàllu xam-xam loolu it lam ko ci liggéeyloo sëñ Ahmadou bu doon moom dong du ko mën a matal waaye woote booba ay bokkam boroom xam-xam yëpp dañ ko ci wuyu liggéey ci liggéey bu rafet ba sëriñ bi nam ko bëggee woon mu amee ko ni ba xam na ne tey jii bu université bi sotti woon tey suba suba dajale nañ noo loo xam ne duñ laaji kenn lenn dañuy xëy rek tàmbali liggéey bi te li gën a jafe nag liggéey ba noppi ay tabax noppi yomb na ndax xaalis a koy def waaye boroomi xam-xam yoo xam ne jëggaani woo fenn dara lépp ci sa njaboot la ñu ànd defal la ko na nga ko bëggee loolu jagleeg sëñ Tuubaa la ndamul Seex Muhammadul Muntaxaa la kon nag sëriñ Ahmad day njëkk sant yàlla ci bi leen sa sëñ bi santee loo xam ne war na leen koo sant ba noppi ñu man ko defal ko ko nam ko bëggee mu am ci nga ñu am ci seen ngërëmul sëñ bi da ciy sant santaane ñi mu àndaloon ci liggéey bi di ko seere lin nag mbokkam mii di si Mouhamadoul Bachir bi nga xam ne moo ne ci diggante bi te yàqu ci dara di puso buy ñaw loolu itam sant gi sant sëriñ bi sant gi mu sant bokk yi mu àndaloon liggéey bi ba sëriñ bi am ci li mu bëgg dafa bëgg seereel ko nit ñi tey jii gërëm leen sant leen tey ñaan sëñ Tuubaa mi tax ngeen doon ko def mu wuutu ko ci fayal leen boppam bi ci des nag mooy lii nga xam ne dajale nañ ko ci histoire sëriñ bi doon ko bind yaakaar naa ne dëgg moom bu taxawee rek xel yépp a cay daje ndax man baa ko xelmatee rek damaa daal di jënd téere yi ca ndakaaru yónnee ko sëñ Seexuna Abdul Wadood mii yaakaar naa jot naa la sëriñ Sam ne la bay boo ngeen gaaw bay boo ngeen gaaw tontu ci te liggéey yàggut sëriñ Basiiru muy wax ci sëriñ biir jox leen ndigal sëñ Ahmadu ànd ak yéen nag ci ndigal loolee di ca dox ba ndigal la sotti tey jii ñu war koo gaaral ñëpp jariñoo ma bëgg nag lii may wax ku ci am cër rek da nga jël cër ba xam ne yow laay waxal nga jël ca lan ca moom koo xam ne wax ji laal na la rek xamal ne war nga caa jël la nga ca moom jëfandikoo ko mooy képp koo xam ne laal nga ca mbind ma wala sa baat man ca dara wala sa kàttan man ca dara xamal ne njuumte am na loo xam ne njuumte lañ ko tudde waaye ñoo ko tey du njuumte ndax njuumte mbooloo du ko def njuumte day doon benn ak ñaar waaye njuumte yu tël ni yii ñu juum moom luñ tey la def ko te duñ ko ca bàyyi ndax gënuñoo dëkk ci réew mi ëpp ñu nu xam-xam te lii ñu ko weddee firil na ko kon nag ñaara mën a am ñu tiri lañ def ci siñ bi ba mu set wecc indi lii dëgg teg fa lañ fa waxoon lépp te du dëgg nañ ko dindi benn par benn ba mu set wecc ñu indi liy dëgg teg fa waaye mayuñu nag ñu fab loo xam ne dara amu ca nam leen neexee lañ ko waxee sos lu leen neex bàyyi ko fa bu ëllëgee suñuy njaboot di ko gis te gone yi ñooy avenir réew mi bu ëllëgee ñu jàpp ne nii la sëñ tubaa mel nii la sëñ tubaa toll te sëñ tubaa wu weesu na foofu tollut noonu li ci gën a gàtt rek mooy nu ñuy tudd histoire yoonu murit ba àggal te tuddoo màggalu tubaa tuddoo tuubaa ci boppam loolu yar muñ sangul la dafa leer naññi la ca gannaaw nag ñi ami bët ñi ngi koy xool di ko xam jërul di ko tudd waaye li wér daal def ngeen li ngeen war a def yoon bi am na ndam ndax xam nañ ne am nañ gone yu dëgër yoo xam ne am nañ xam-xam bu doy sëkk boo xam duñ jëggaane fenn lenn luñ dugal ci yoon wi te wuri cee bokk danañ ko ci génne lu ci mat a dugal danañ ko ci dugal waaye lu ci mat a génne danañ ko ci génne te ci yar ak ci teggin lañ ko ci génne uddu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawizati al hasana la leen sëñ bi jàngal te moom la ñuy tare nañ neex a nañ neex a nañ neex a waxal te dégg liñ leen di déy mooy ci ci njëlbeen ñu ngi wax ak ñoom ciy teggin lañ tuumaal sëñ bi wane ne ay njuumte la te ñoo ko tey nañ ko dindi ci téere bi ma seet wecc indi lii boroom xam-xam yii wax ndax ñoom ba ñuy tàmbali liggéey bi neewoon nañ leen bu ngeen bëggee ñu ànd ak yéen ci liggéey bi yoon woo xam ne sëñ Basiiru bind na ci sëñ Mat Laamin Jóob bind ci ñi mujj seen gannaaw bind nañ ci am te amu ci te buñ leen laajee ñu jox leen lu wér ñu dem seet la leen neex ñu bind ko te nanguwuñ leen a laaj loolu nag dafa am lu muy nuru te ñëpp gisandoo nañ ko xamandoo nañ ko kon nag li des mooy dellu gannaaw te bañ cee ñëg fu ñu tuddoon sëñ bi ak lu ñu tuddoon histoire sëñ bi nañ xool li dëppoog li lii gone lii raw du bind ñu dugal ko fa bu ñu mënul loolu nag ñu xam ne nañ far mboolem lu ñu bindoon ci sëñ bi te bàyyi noonu li ñu xam te wir ñu bindal ko suñu bopp doy noonu soxlawuñ ku nuy won sëñ bi ne nii la mel soxlawuñ ku nuy wan sëñ bi fii la jaaroon liñ ci xam doy noonu sëñ bi doy noonu tey ëllëg sëñ bi du ko ñuy jaay du ko ñuy wone wone na boppam yàlla far na ko yonent bi far na ko ahlu badin bi far na ko soxlawul kenn ko koy wone ni muy mel na ni ba noppi kon nag nañu bàyyeel sunum sëñ Tuubaa mi nga xam ne amuñu lu dul moom bu ñu wan ne nii la meloon fii la jaaroon ñeet yi bokkam gënuñu nu koo xam bu ñu mënee ne ak ñun ci lii fa lillahi alhamdu bu ñu ko mënu nag nañ téye seen i téere te génne ba mu téere bii ñu ko weddee ba mu ba mu leer it murid yi nañ ko jënd te tasaare ko ñëpp xam ne lii ñu waxoon du dëgg dañ ko tumaal sëñ bi xam naa nag xaalu naa waaye yëf yi dafa maa metti te metti murid yëpp ndax ñoo xam ne ñi ngi dund dara jotu leen ñu jàkkaar la ñoom di leen tuumaal di leen di leen di na di wane ne ay njuumte la loolu dafa neexut dara waaye nag dañoo taseeg gone yu dal yu yew yu am xam-xam ñu woo leen ci njëkk weddi ko ciy teggin yàlla na leen yàlla may nag dégg ak topp ñu nangu leen di fekk si buñ ko defutit murid yi kenn ëpp leen bopp kenn ëpp leen fulla kenn ëpp leen xam-xam xam nañ li ñuy def kon nag sëriñ bi noo lay ñaan yow mi nga xam ne maslaa maslaakan nga te da nga mën a wax nga ñoom ci njëkk nee leen nañ bàyyi sëñ bi ñuy tuumaal di wax ci moom luñ xamut te yem ci gone yii ko jàng ba xam ko lu ñu wax ñu doyloo ko mm. nañu bàyyi ak sunum sëñ Tuubaa du lu leen neex bind ca nañu bàyyi ak bi nun noo ko gëm noo ko bëgg te noo xam sëñ bi nañu bàyyi li ñu xam ci moom téere sëñ Basiru baa ngi fi téere suñ Madi Lamin Jóob gi ngi fi leen li du ay njuum te tay la ñoo ko tey ku leen wax ne neex na murit yit neexu leen murit ñoom neexu leen lii ngeen def nag murit yëpp ngeen ko defal lii raw du def ci njiitul sa Ahmadu murit yëpp lañ ko defal ndax ñëpp ne woon ñogg am lu leen naqari amoo lu dul kenn ñu fab ko di la ko waye falal xeetu waye falal goo xam ne luñ jàpp ne buñ ko defee mu sax fa boo ëllëgee kenn du ko teg fa ko war a teg wala duñ ko joxub cëram ñu wàcc ko fa ca téere bi mu sax fa ku di ko gis ko loolu neexul benn murit ñëpp la naqari woon waaye gàcce guñ ci amoon ak naqar wuñ ci amoon bi ngeen ko weddee def ko ci ay teggin def ko ci téere bi te amaan nañ ci mbégte mu raw ba fàtte woon nañ luñ ci mosoon am ci naqar kon nag li des mooy lii waa raw def am na luñ ci war a jànge mooy sëriñ bi ab joxañ la wone mooy li yoon wi am ci boroomi xam-xam ubbi waat na buntub ñu yokk di wéy di wéy ba du xam kenn du xam fu muy yem mooy daara ji kon nag murid yi nañ takkuwaat ci daara ji jàppale ci sëriñ bi gone yi gën a jàng te kenn ku ne looy jàngi nga am pas-pasu dikk jàngale ko ci daara ji nañ am pas-pasu bi it lu waay am bala ngaa am jàmm soo ses nga joxe ko ci daara ji bu kenn joxe ren bu demee ne nga ne joxe woon naa daaw nit ku ne boo xëyee boo joxee dépasse bu dem bu teyee boo subaa da nga daañu la laajaat dépasse bu tey daara ji dafa des ab liggéey bu noppi woon coleet bañ tàmbali ko jàngale it maintenance baag dund baag la ca war lépp si yoonu murid la war sëriñ bi ciy tegginam junju ne leen ko na leen leer nañ yéen ci mbaggi murid yi la aju murit bu ne at mu ne lu mu joxe woon at mee na ko joxe waat xam ne daara ji day wéy di wéy du la teggi ko te moom dong nga fii bëggug sëñ gu ñu xamoon mu di bëgg mu bokk fi moog jumaa ji jumaa ji jàll na moo fi des kon nag képp koo xam ne da nga naan boo fekkoon sëñ Tuubaa su ma sañoon fekk lu mu bëggoon ba ma ne ca bëggu sëñ Tuubaa ngi goo xam ne wér la moo ko bëggoon bàyyi ko fi mébét ko fi te yàlla sottalu ko moom Cheikh Mamadou taxaa ànd ak murid yi war ko àggale kon nag wàcc amut nañ yeesalaat pas-pas yi takkaat suñ ndigg fas yéene ànd ak moom ci liggéey bi daara ji rek mooy sas yi mooy liggéey bi nañ fonk xam-xam bi ak daara ji te góor góorlu ci liggéeyal sëñ Tuubaa te bennoo te booloo fas yéene kenn bañ a dox suñ diggante mm. boobaa kenn du nu mënal dara dara dara mm. ndax lii ngeen def wane na ne lu ngeen ji man ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.